bi kilifa gu toll ni Mamadou Lamine Diallo te kilifa laa koy woowee ndax mag la te it defe naa ni moom du ab ignare di tubaab di wax ignare c'est pas un ignare c'est un intellectuel nit ku jàng la ku am xam-xam ñu woo ko ci ab plateau defe naa ni am na yeneen yu am solo lool ci réew mi yu mu war a wax lu dul di jéem a dénigrer man sama jëmm ji ci participation bu ma participer ci dialogue national naan que moom du awma fa place ci gàttal daal su ma ko mënee résumé loolu nag ah engagement am la ndax nag wax dëgg yàlla xam nga boo nekk mënoo nekk ci réewum démocratie naan diw lu tax ngay wax lii am na droit wax lu ko neex ndax démocratie la en démocratie ku nekk danga koy nangul mu wax la mu bëgg a wax nga d'accord caak nga bañ ca d'accord waaye xalaatu boppam moom la wax moom Mamadou lamin jàll teg ci man su ma nekkee citoyenne sénégalaise juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee Sénégal am carte d'identité sénégalaise passeport sénégalais su ma demee yeneen réew li ma am am tur dañu naan la chanteuse sénégalaise moom mu jël jugé ni man awma place taxaw ci dialogue national bu ñu wone pour la nation ñu woote ko pour la nation pour les sénégalais pour toutes les forces vives de la nation moom am na droit bañ caa ñëw am na droit am opinion am na droit wax lu ko neex nangul naa ko ko waaye na ma bàyyi wax dëgg yàlla te xam ne manub citoyen la am naa droit taxaw fu ma neex dem fu ma neex bokk ci lu ma neex rawatina bañ ma ca woowee ndax ñëwuma ca comme un cheveu dans la soupe dañ maa jox ma considéré ne man citoyenne sénégalais laa na ma ko waxee sénégalaise plutôt ma ñëw teg ci man bu ma dee jéggi sama réew dem ba yeneeni réew nee naa leen champ de Linguère Mali ak champ de Linguère de tous les pays te mu ren bi mooy paix sécurité cohésion sociale waaw bu ma ñëwee ñu woote man sama réew woote ab dialogue boo xam ni paix et cohésion la man ma ne du ma ca teew bu ma ca waxul sax war naa ca teew ndax citoyen bu ma doon na serait-ce que pour déglu xam fii lan lañ fiy wax ndax li ñuy wax ci réew mi kat ñor na ma te war naa caa wax buñ ma ca interpellé rawatina nag léegi bañ ma ca interpellé ma di ca wax te man ba ma fa waxee la ma fa wax muy ci français muy ci wolof ñëpp dégg nañ ko te defe naa ni képp kuy nit kii nit laa wax nag waxuma ko leneen lu dul nit mm-hmm. te ne ci réew mi saluer nga ko ndax société malheureusement ñaar ñoo fa nekk ñuy dégg ak ñu dul dégg ñuy ànd ak ñi dul ànd te defe naa ni la grande majorité saluer nañ ko ndax waxi citoyenne bu responsable laa fa wax waxi citoyenne bu xam réewam waxi citoyenne bu bëgg réewam waxi citoyenne boo xamante ni engagement ci réewam mosula am faay loolu mooy benn bi beneen bi it dañu war a arrêter di dénigrer artistes yi parce que moom su nee man du wax ak man xëy na dafa defe ni rek man artist la que man awma foofu place mais foofu artistes yi dañ fa am place mais artistes yi ñoom ñooy apaiser su dëkk bi di tàngee bay nar a tàkk artistes yi ñoo ñooy def musique pour apaiser les esprits il faut que les leaders apprennent à utiliser les artistes pour comme des vecteurs de communication dañu war di utiliser artistes yi comme ay vecteurs yu communiquer kon fu pas ñu dénigrer artistes yi artistes yi du ñu ay amuseur public man de en tout cas duma amuseur public ndax amuseur public du nekk ambassadrice bonne volonté au minimum cinq institutions ou presque onusiennes nga xam ne benn bu ci nekk nag dinañ def enquête du moralité un an xool yow mi ndax sa moralité bi mën na taxaloog suñu image wala déet ndax nekkoo kuy def lu dëng doo dem bërki démboo njaay japon ak les japonais comment ils sont nga signé fa ñu ñu di la autoriser di la di la financer ngay tabax école léegi nag dañu war a respecter artistes yi xam ne mënuñu leen génne ci société bi ci artiste bu ko xam nag te xam boppam te respecter boppam parce qu'il faut se respecter et se faire respecter il faut arrêter de vouloir dénigrer les gens maintenant nag moom am na liberté def lu ko neex wax lu ko neex xalaat lu ko neex mais moi je n'accepterai pas de travailler pendant plus de trente ans de métier et de faire de la rigueur et de l'exigence mon credo et mon leitmotiv nit ku jóge xaw ma kan la ñëw bëgg a dénigrer lenn ci sama jëm wala ci sama kàddu sa je ne le ferai pas et je l'accepterai pas maintenant nag vous m'avez posé la question sinon moi j'avais dit que c'était sans importance sans langage cependant pour finir moi je vais inviter monsieur Mamadou Lamine jàllo à juste aller construire une salle de classe dans son quartier man loolu rek laa lay ñaan monsieur Diallo demal nga tabax benn salle de classe sa quartier man maa ngi dem tabax tabaxi Pikine benn école waxuma salle de classe de benn école en entier moom laa fay dem tabax tabax naa bi nekk école Tivaouane centre xale yi ak Estelle tamit man maa ko tabax Go dia un bâtiment de près de trois étages c'est moi cette femme avec qui vous voulez pas communiquer qui l'ai fondée allez juste construire une salle de classe dans votre quartier en ce moment là quand vous viendrez je verrai si moi-même je pourrai discuter avec vous ou pas. C'est tout ce que j'avais. Très bonne réponse. Il y a d'autres questions Non. Dernière question. Résumé en français. Les questions, c'est bon. waaw waaw. waaw. ñu toog seen kër jël seen mhm. jën yi mhm. mhm. nekk yaa nga xam ne dañuy togg añ tey boo gisee loolu jigéen ñi ku nekk di ut li nga xam ne moom ngay amal sa bopp euh, loolu tey boo amoon loo leen di wax pour gën leen ñaax lan lay doon nañ ci continuer ci yoonu woowu man su amee lu may ñaaxee jigéen ñi ci seen yaa boobu ñu nekkee seen jom ji ñu nekkee di jaay sa poisson jug 5 heures du matin jënd say jën teg ndax léegi xam nga internet bi dafa yombal lu bëri daf ñoo dimbali ndax voie de communication la ki nga xam ni jàngul sax am na TikTok compte TikTok def ay jënam boo xoolee mu ne man sama jën yi dañu rafet kaay leen jënd c'est très bien ki nga xamante ni ni xamul sax nu ñuy bindee dooma ma ngi koy defal ma maakaama ma ubbil la compte ubbil ko muy wane njaayam kon léegi internet ak réseaux sociaux doonatul seulement pour ñi jàng ak ñi am xam-xam ndax àddina mooy dox te àddina bi dafa changé léegi kon jigéen ñooñu ñëpp nga xamante ne ni tudd nga leen fii ñu am jom am fulla am fayda am xarañ xam seen bopp bëgg seen bopp di ko wéyal te di ko wane ci ay réseau di def seen publicité di jaay pour génn ci man li may wax rek naan c'est tout à leur honneur maanaam seen seen ndam la seen sac la nañ ko wéyal ndax gis nga nit y a pas de sot métier man je préfère jël sama liggéey bi cinquante mille francs bariwul de xëy na ñu di ma ko fay weer wu dee ma di ko ñaq am ko bu weer dee ma dem contribuer ci kër ga benn dix mille francs ni yaay dix mille de bëriwul ndax damaa pass ca dix mille ya wala quinze mille ya li ci des a ngi ni bëriwul waaye maa la jox di ñaanal ma dina bëri li ci des ma dem fructifier waat jëndaat jaayaat que may tàllal sama loxo di ñaan que ngay taxaw di def lu ñàkk fayda luñ lay yabe ndax ku la may benn yoon ñaari yoon ñàpp la tey ku benn yoon ñaari yoon ñaan la lu mu la warul ñaan boo amul pexe boo ñàkkee fayda may ko ko kon da takk sa ndigg nga liggéey nga am jom kon jigéen ñooñu man dama leen di encourager te loolu mooy li nga xamante ni man loolu laa gis ci jigéenu Sénégal loolu laa gis ci jigéenu Afrique loolu laa gis ci jigéen ñu bari ci seen jom seen fulla seen xarañ te 8 mars bi nga xamante ne nii moom la ñu ni moom la ñuy célébrer c'est pas une fin en soi maanaam warta nekk loo xam ni rek suñu njeexital la daal ah pare naa ci déedéet au contraire dañu war a euh, gën a góorgóorlu gën a wane suñu pasteef gën a wane suñu jom ndax jigéen ñi ñoo yor kër yi généralement boo dee xool da ngay gis benn kër boo xam ne juróom-ñaari nit a fa nekk ñaari jigéen a fay liggéey wala kenn mais ñaari jigéen ñooy ñoo yor kër gi de ñooy liggéey di fay lu yaasu yaay ja ñooy fay courant ba ñooy joxe dépense ya ñooy rey seen bopp di sonn pour kër gi avancé kon dañu leen war a gën a encourager ñoom tam ñu gën a gëm seen bopp gën a bëgg seen bopp te ñu bañ a jële ci 8 mars di ko yemale ci folklore 8 mars du folklore bu leen kenn dugalati ci ay folklore yu perte temps beneen bi it vraiment euh, Aminata ma ci ñaax sama sëru jigéen ñi liggéey bay bëgg a dee yàq ko tey loolu du ful la te da gis ñoo xam ne dañuy liggéey lu bari daal di koy dajale yóbbu nañ ko ca yebbi ya walla ñu yóbbu ko ca ngénte ya wala ñu yóbbu ko ca takk ya pour di jaay jomba ñaaw ku ne la nga am ngay may ak say moyen soo amee yow dund nga ci moyen yoo xam ne yow milliardaire nga wala sa jëkkër millionnaire la wala sa lii lii wala yow am nga moyen bu la neexee nga dem def say teraanga joxe say million parce que teraanga lañ fi xam loolu mooy teraanga Sénégal waaye yow amoo ko munoo ko jël la nga dajale woon war ko dundee am at ngay jaay jomba ñaaw yóbbu ko ci xew yebbi ko fa lépp toog boo xëyee toog bor ya topp la loolu dara jaru ko na jigéen ñi am fulla di investir di fructifier di organiser wu di denc demee di épargner pour seen ay njaboot parce que doomu investissement la di épargner pour seen ay njaboot mais bañ liggéey rek yàq ko wala ngay def loo xam ne amul sens loolu tamit du développer sa économie te du développer jigéen et puis ñu wéyal vraiment seen combat gën a xam ñi ñu doon gën a xam ñooy kan gën a encadrer seen ay doom yi gën joxe les bon exemple parce que jigéen ñi ñoo mën a joxe de bons rétroviseurs ñoom la en quelque sorte dans la société et puis suñu dirigeants yi aussi ma leen invité ñu gën leen a jox cër gën leen a permettre ñu jouer seen rôle bi nga xamante ni moom la ñu war a jouer ci ci société bi gën leen a jox considération loolu daal laa amoon lu ma ciy wax. Mm-hmm. Pour mm-hmm. euh, mm-hmm. beaucoup. Euh, Euh, Fatima. Avant tout, je voudrais euh, vous remercier pour euh, cette rencontre